leen communiqué bi bàyyeekoo ko ministère de la santé et de l' action sociale tey bésu ajuma ñaari fan ci weeru avril bi ñu nekk ministère de la santé et de l' sociale jot na résultat examen virologique yi may waajalim ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukki test yi ñu def téeméer ak juróom-ñaar ñoo ci positif ci positif yooyu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 Kër Massar ak Guédiawaye ñett ci Liberté 6 ak Plateau ñaar ci Cité Fadia Dieuppeul ak Ouest Foire benn ci Almadies Bambilor Castor Cité Baobab Cité Djilimbaye Fann Résidence HLM Grand Médine Mariste Mbao Médina Niakourab Rufisque Sacré-Cœur 3 Yeumbeul Yoff ak zone de captage ci région yi am nañ ci ñaar fukki ak juróom-ñaar ci gox yi fukk ci Saint-Louis ñett ci Diourbel ñaar ci Joal ak Kolda benn ci Kaolack Kédougou Mboro Saly Sédhiou Somone Tambacounda Thiès Vélingara ak Ziguinchor juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci maladies yi entre yi yu entré woon hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañ génn bu si yàlla ànde fanweer ak ñeenti malaat ñoo nekk réanimation ñaari malaat ñoo ñàkk seen bakkan bu su démb alxames benn fan ci weeru avril mi ñekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey daleeku ci kaabu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak juróom-ñett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 denc seen i carte bañ a fàtte seen rendez-vous ngir mun a tollanti ñaareelu dose bi di wéy di sàmmonte ak digle yi ñuy joxe bés bu nekk ni ñëpp ministère de la santé et de l'action sociale